digganteeg Siteu. Siteu daa dem gàddu yaa ko njëkk a yaa ko njëkk tooñ ko yow booy ni ngay waxee. non waa dafa dem gàddu ab téere <laughs> kaamilam xamu fu mu ko jële <laughs> ñëw ma day waat. xam nga ni sibir yi dañ ko ne bi ngay ñëw naturel loo. naturel loo waaw. ah mu ah, ko looy waat may wax mu génn téere. <laughs> yor téere ma gol day ram ñu taxaw sama gàddu. ma ko booy téyel sa téere bi. waaw mun duma sa morom. waaw waaw. tegal sa jëlal sa téere da ngay ngay waat. pourtant am naa ci problème am na rajo. <laughs> RFM def nañ ci émission yegg saas ba xaw ma sekk ak kan sekk garmi ak am na ku daan animé Boubacar Diallo. waaw waaw ñu ne voilà démb Bécaye mooy wax téere bi nag saas <laughs> ba jël xas ma ca ca ngoon nga ñu daje maa ngi mu ne ma xumbal rek. xumbal waaw waaw moom xam nga sa <laughs> waay bul yàq sama affaire. ndeysaan waaw yooyu yëpp. yooyu yëpp ay ay ay nit ak parce que man télé boo ci dem ak rajo boo ci dem maa ngi ñoo ma doon liggéey. wallaay dëgg la wallaay dëgg la. dañoo nekkoon ci benn télévision boo xamante ne dafa amoon doole trop. muy Walfadjri rajo rajo. rajo boo ci dem da nga fa ko fa mu sane ndeysaan waaw ba ci ñun Papis Mbaye waaw Modou Diouf ñu ngi leen di nuyu bu baax Modou Diouf boobu Modou Diouf Papis Mbaye sunu technicien ndeysaan ndeysaan waaw la ko si Lamine ñun da am ko kaay wal fajiri boobu mhm. non wal fajiri boobu dafa neexoon dafa amoon doole dafa amoon doole doon rajo du télé télé rajo di télé waaw. rajo la boo mel ne da ngay mel ne kuy seenaan télé. wallaay dëgg la moo sax. voilà loolu la woon moo tax ñun ñëpp ak way bi ci coon wayoo nag yi mu ci def ak. waaw war fa jëri beneen affaire la dëgg la dëgg la. macha allah. macha allah dégg ngeen li sama nijaay wax. nii la ëttu kër ndaataan yi di demee. macha allah doon émission boo xam ne nag. ah géwél yee ko moom waaye képp kuy ndaanaan rek yaa ko moom.